sàll nay leer nekk conseil municipal ci commune Touba bokk itam ci kuréel gi nga xam ni moom la ñuy wax junnatu te Serigne Mountakha Mbacké tànn ko boole ko ak euh, composé ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah te Serigne Youssou Diop jiite ko ak monsieur le maire ak Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi jiite Touba ci kanam tey dañoo ñëwoon fii ci armeel yi nga xam ni mooy barab yu njëkk yi nekk fii ci wetu jumaa ji. ñi fi tëdd dootuñ déplacé te dootuñ demati fenn moo tax wormaal leen ah gën a defar barab yi waraloon ci liggéey bi nga xam ni kuréel gi sëriñ bi tànn ñuy liggéey ci dëkk bi ci mbënd mi taxoon nañu indi fi benn moto pomp boo xam ni. mi ngi nekk 300 mètres kib ndax ku ne xam na ne fii dafa am napp ñaareel ba mooy ndox mi du génn li fi ñëw dafa bari torop ci ndox ba fees dell biñ ci waxtaanee ak kilifa yi ñoom ci seen biir ñu waxtaan ci ba déggoo sasoon ñu ni nañ fi indi benn moto pompe ngir mu awaakee ndox mi. moto pompe yooyu itam aussi noonu lañ ko tasaaree ci biir dëkk bi yëpp ndax ku ne xam ne dëkk bi am na ay points yu bari ay jumaa ak i poste de sante ak i hôpital ak. ay yoon yoo xamante ni bii yoon yu mag la yoo xam ne ndox mi dafa ko baare woon surtout ñi nga xamante ni bii itam ndox mi dafa nangu woon seeni i kër. parce que am na ay point barre yu mag yoo xamante ni bii saa foofa sampee machine rek buy évacuer ci point barre boobu rek bari na kër yoo xamante ni dafay dafay wàcc ndax dañuy xëttaloo wala souvent dañuy tànn benn point barre bu mag point stratégique boo xam ne ci la ñuy samp benn machine. yeneen kër yi di pomper ak machine yu ndaw yi muy ñëw ci point barre boobu machine bu mag bi di ko jël di ko yóbbu ci réseau bi. malgré am nañuy jafe-jafe ndax réseau yi ku ne xam na ni Touba réseau bi bariwul dafa sore mais def nañ le tout pour machines yi ñu yor nga xam ni ci ndimbalul mairie bu dakaar ci lañ ko indee mu nekk ay machines yu yu am doole lu toll ak juróom-ñaari machine bi sëriñ bi euh, joxe ndigal ci mbënn mi ñoom balaa ñoo xaar dara ci la maire Dakar yónnee lu tolloog juróom-ñaari machine ak équipement ñu ñëw commencé di liggéey ñoom itam wax dëgg yàlla jàmbaar nañ parce que bi ñëwee commencé di liggéey booba fekk na sax defaguñ dara sëriñ bi tax taxawalagul comité bi ñoom ñu indi seen i matériel indi seeni i moyen indi seen carburant seen équipement lépp di liggéey bi ñu demee ba nga xamante ni bii sëñ bi aussi itam yëkkati na lu tolloog ñaar million jox ko kuréel gi ngir ñu jàppale askan wi ci ndox mi évacuer ndox mi ak defal leen ay social jàppale leen ci wàllu dund ak ay hébergement waa kuréel gi wax dëgg yàlla ñoom itam amaat nañ beneen taxawaay bu bees ngir ñëw seconde ñi nga xamante ne ay bonne volonté la woon ñëw di jàpp ci liggéey bi ñoom itam ñu jël ñooñu héberger leen ci résidence Khadim Rasoul bi di leen jox añ di leen jox reer di leen jox ndékki wax dëgg yàlla comité bi ñooy def loolu ñaareel ba itam mooy di leen jàppale ci carburant bi nga xamante ni ñoom ñi ngi ci woon waaye comité bi ñëw nag di leen jàppale ci carburant bi nga xam ne moom la ñuy def ci bu ñu yendoo tàkk ba jant soo li ñuy lakk ci carburant dafay bari lool comité bi ñëw jël en charge yëf yi nag ñoom itam di ci def carburant am nañ fi xalaat boo xam ne tey jii bu lii amutoon duñ ko am parce que point barre bi ñuy évacuer ndox mi moog réseau bi parce que mutul 20 mètres mook mook mook fi ñuy jëlee ndox mi ci biir armée di ko évacuer ci réseau bi mutul 20 mètres loolu jàpp naa ni foofu ni mu mel war nañoo man def fa benn giri benn point barre boo xamante ne day évacuer ci réseau nga xam ne lii dootu amati même am na ay juma ak ay jàkka yoo xamante ne ak ay poste de santé yoo xam ne sori wuñu réseau bi loolu pour ñu raccorder ko ak réseau bi am nañ ci expérience dolli ca lañ ci amoon ba buñ ko buñ ñu ci laajee xalaat buñ demee bu yi passé danañ xool nan la ñuy fexe ba toog waxtaan pour que yu ci bari dana mën a saafarawu bu boobaa. donc ci coordination bi am na kuréel goo xamante ni bi donc chaque jour ñi ngi xëy ñoom itam di superviser terrain bi di xool point yi nga xamante ni bii jar nañu dem fa intervenir fa direct ñu dem fa. bu fekkee foo xamante ni bii dañ fa soxlawaat yeneen machine pour ñu def fa renfort itam ñu dem fa pour ñu xam ni tooguñu nit ñi nag donc ñi ngi ci ay jafe-jafe ñi ngi leen di mbasawu baax parce que ñu bari dañuy woote mais dëkk bi dafa yaatu dëkk bi dafa yaatu te réseau bi yaatuwul looloo tax xay na ñu ci bari intervention yi xaw a yeex tuuti mais ñi ngi def le tout pour que ji ma satisfaire nit ñi parce que ku gis jamono bii xam nga ni ñett depuis ba mi amee ba léegi mës ta jëlal ñaari yoo xam ne tawut da ngay da da ngay day taw da ngay évacuer euh, fenn ba pare ba mu jeex ba nga jàpp ne war ngaa sempi machine bi fi ngay toog taw bi fekkaat la fa nga mujj fa bàyyiwaat machine bi kon ñu xam ne loolu dogalub suñ borom la boo xamante ni moom la indi ñu nangu ko rool mu rafet ci ñun itam nag teewul nag jaam bi moom li ko war mooy wërta seetaan wërta tëdd noonu rek nelaw dafa war continuer di jiima def ay effort di góor góorgóorlu mooy lii ñuy def nii bon jiima sécuriser population bi moom jar na lu ne parce que xool biir biir armée yi ñu toll nii biñ ciy monté biñ ciy monté euh, carapine bi nekk ci biir dugg ba ci biir ndox mi xuus ci biir ndox mi dem di monté carapine bi ci biir donc loolu xam nga euh, du lu du lu yomb psychologiquement rek ki koy def rek da ngay xam ni kii sax xëy na dafa xaw a am lu mu àndal wala da ngay xalaat ni kii donc volontaire bi mu volontaire ci boppam sëñ bee ci ciy dimbali waaye loolu ku ànd akom xel dëgg-dëgg sax waaye ku xaw a kii tuuti loolu loolu doo ko doo ko doo ko mën te boo gisee xale yi nga xamante ni ñoo jóge woon euh, dakaar bi ñu ñëwee man bi ñu dugg ci ndox mi sax man dama xaw a jaaxle tuuti mais bon boo leen waxee ñu ne sëñ bi moom lu mu santaane def rek waaw sëñ bi moom lu mu santaane loolu dañ koy def dara du dox suñu diggante ñoom looloo tax ñu mën a def liggéey bi ñuy def nii.